mooy su Soundiata Keita alors euh, ñu dem léegi déglu élément bi nga xam ne jot naa ko ci def ànd ki nga xam ne mooy Babacar Diop moom nag mu nekk acteur culturel euh, di yendu ci wàllu conte euh, lu ci mel ni également théâtre bëri na loolu ci loo xam ne da ko jëngu ci wàllu moom lañ sekkaloon a waxtaan mu wax jox ñu différence entre mythe conte et légende am également benn légende boo xam jox nañu ko mu nekk expression boo xam ne dañ koy faral di wax te peut-être bi ñu dem déglu ko léegi dellu si waat li nga xam ne moom la ñuy wax mythe ak légende muy làkki tubaab. Euh, ak compte yenn saa yi nga gis sax ku ci bindandoo ci benn téere waaye ngir nga xam lan moo wuutale mythe ak légende parfois dafay jaxasoo ak conte waaye suñu ne lee la légende de Soundiata Keita dafa fekk lañu ñu nettali euh, tubaab moo ko tuddee légende parce que tubaab bi am na ci lu mu dégg ci biir histoire bi gëmul ni loolu mën na nekk mba mbas ndax kenn mënu ko expliquer ci lu rationnel donc on dit ci gàttal euh, nit tamit noonu la xaj na bu ñu nettalee ci biir yi ñu bëgg nettali dinga nga sentir lan moo waral nit ñu koy wax yenn saa waaye de toute façon li ñuy wax mythe ak légende dafay faral di ànd ak doomu aadama ci dundam mooy loo xam ne danga koy gëm te mën na bañ a nekk wala kenn du mës a gis preuve bi ba fi ma toog di waxee ak yow am na loo xam ne soo ko waxee ci mbooloo ñu weranteeg yow koo gis rek mën la gis naa seku muy wax et pourtant scientifiquement parlant l'aire de Broca bi nekk ci boppu nit amul benn animal bu ko am seku waxul yow yaa ko waxal su ma la jox exemple soo ñëwee ci kër ñun la am seku mi day day wax Faatu Njaay parce que dafa dégg nga wax mu def ay intonation boo xam ni day niroo kuy toppandoo loolu waaye su fekkoon ni Faatu Njaay la wax soo ñëwee kenn du la wax ni seku mi nee na yow xamal sa bopp euh, su ma yoroon milliard dinaa ci technique ku ma indil seku mi wax ma jox la deux millions am naa fi du man parce que seku mi wax da nga koy teg rek ku ñëw mu wax nga dégg mais pas question am ku toog di ma wax li seku muy wax su boobaa waa ji moo wax mais sekku mi waxul Sénégal dafa bëri lu ñuy faral di waxtaane ci cosaan mu xewe ci dëkk yi wala ci àll bi wala ci diggante buur yi compte moom léeb la léeb dafa euh, léeb dafay jël loo xam ni day jël ay rabu àll def ay personnage dañ ci daan tàggat xale yi di liggéey ci seeni xel ngir ñu am benn intelligence bi ngir ñu bañ a jaawale dëgg ak neen wante am na ci olof yoo xam ni dafa jege loolu lépp ay mit la dafay faral di wax kuli xame naa jaalo loolu moom ñoo seen ñuy dem rek am na ku ko commencé dégg ci ñoom Sénégal waaye ñu bari xamuñ lan mooy cosaanu loolu moom laa lay bëgg a nettali lii dañu wax ni euh, kuli ak jaalo ku ci ne dafa falu woon seen réew yi am wenn dig léegi nag kuli eh, nekk buuru Jatakunda jaalo mooy jaalawaal yi ñuy wax ngay dégg wante saltige kuli su masaan gis jigéen ju rafet dañu wax ni day rey baay ba rey mag ja jël ndaw sa ak yaayam yóbbu këram mu di ko def di ko def ba mu yàgg mu gis benn rakku jaalawaal bu jigéen maanaam benn sëram bu rafet ba réew mépp di ko coow ñu ne dara sikkul ci moom fanweeri bëñ yéeg ñaar dara mejju ci dañoo wex tàll sure ñëpp dëkk ci moom euh, saltige li nag ni jaalowaali sa rakk ji jox ma ko soo ma ko joxul ma def la ni ma daan def ñeneen nit ñi euh, nee nañu jaalowaali ni ko jigéen ñi ci sa kër bokkuma ca kenn lenn loolu mooy wane ni man mosuwoo jël sama deret ndax ni nga leen di jëlee ni ko man sama doom ku koy takk da ngay ñëw euh, li sama diine sant muy lislaam nga ñaan ko can ko ñu may la ko bañ ko waxee kuli kuli daal di mer jël benn émissaire maanaam jël ndaw yónnee ko ko ba mu ñëwee euh, Diallo Wale xamal ko ni ko eh, li ma wax looloo nekk nañu xamal saltige kuli ni ko man dama am diine am aada am nu may maye sama doom sama doom kenn du ko jël ci noonu muy jëlee jigéen ñi benn ñaareel bi moom na xam ni buur la may buur ay nawle la ñu mën ak moom ba mu paree mu jël genn gaal def ci wurus ak xaalis jox ko géwél ba ñu waa waa ji ñu yónni woon émissaire bi ba pare jam ko ci dënn bi dañuy wax ne daf ko dëbb paaka bi ci dënn bi ba pare roccuwaat ko déedéet loolu mooy solob mit boo koy dégg bu mu ko jamee paaka bi ci dënn bi màndarga la doon wut nee nañu roccuwaat ko bi mu ko roccee ni ko xam nga lu tax ma jam la ci dënn mu ni ko déedéet mu nu ko soo demee wax euh, saltige kuli ni ko euh, su su gisee alal ji nga yor ma jox la day defe ne da ñu fee ñëw di wayaan waaye soo ko wanee gaañu gaañu bi blessure bi day xam ni wax nga liñ la waxoon ba mu demee wax ko géwél ba ñibbi wax ko saltige naka mu ñëw wax ko saltige ku li rek mu ne ko yow nekk dama lay yónni kay dem ci àll bi di wayaan mu ko déedéet daal di génnee gaañu gaañu bi ni ko xanaa gisoo lii wax ko la ko jaalawaali wax mu ni ko dellul soo demee nga ni ko lu mu seen muy yëngu man la na waaj mu ñëw wax loolu jaalawaali jaalawaali ni ko boo demee nga ni noppi naa pare naa lu mu indi rek dana fekk lu mel noonu ñu daal di jàpp benn bés bu ñu war a daje bés boobu ku ne ànd ak sa gàngoor ñu daje ci benn àll nee nañ bi ñuy dem ba jubante lu ma deux ci àll bi kuli dafa geesu gàngoor mi leen taxaw leen fii bu kenn weesu fii jaalowaal tamit euh, taxaw ni ñu ma àndaloon bu kenn weesu fii boobu kenn ku ne sa fas ni muy rëppatale di ñëw ku ne daal di jaabal sa fas ñuy daw ku ne wuti sa moroom ñu daje ñoom kot ci digg àll bi fas yi fóonante euh, saltige ku li ni ko yow yaay kan mu ne ko man maay jaalawaale yow yaay kan mu ne comme man maa lay yónnee woon te dégg nga li ma la waxoon ñu daal di cëppeelu rek tampaloo di fetalante ñuy fetalante ci àll bi di fetalante ba àll bi tàkk fas jaxasoo fas yee dee ñu génnee seen jaasi ba seen bal jeexee di xeex di xeex ba jaas ya damm ñu jël seeni paaka di jamante di ànd di daanu ba paaka ya réer ñu songoo ku ne xocc sa morom ba ñu daanu àndandoo wow koŋ dee ñoom ñaar ñi leen toppoon nag toog toog ku ne gisul euh, sa buur ñuy waaxu ba daje bëgg xeex bi ñuy bëgg a xeex am ku wàcc ni déedéet taxaw leen mu ni euh, anañu àndoon ak jaaro ñu ni mu ngi mu ni wàññeeku leen dellu mu ne ana ana ñu àndoon ak kuli ñooñu yëkkati seen loxo mu ni wàññeeku leen ngeen dellu mu ni leen jaalowaale du maye doom ji maanaam rakkam jooju du moom moo koy maye mukk daal ni sali saltigee kuli tamit du denc mukk rakku jaalowaale jooju kon kuli xame naa jaalo loolu mooy cosaanam